mooy baadoola sëñ Daouda mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay ñëpp wóor wóoroo te yaay digle koor gi fii ci koñ boo xëyee sa koor ka fay waaye balaa bi dee nga dog koor gi ah naan bu koor gi ñëw doo gis kenn kenn laa gisul xamaa xaari moom li koy papam aay moo tax quoi badda waaw den zilen bok eyyi eyyi pël bi eh, eh, ala wona noon o dëkk ɓe ñakki gendarme setet yoy jëlen kastinu pël bi rek e fatmata dara am jotul dara caaju gàtt gi pël yi ni mu leen bañee ñëpp laa taal Eh, wóorul nag xoolal ñun pël yi nu mu leen bañee xam naa bu ma amoon daal si dëkk rek pël yëpp lay taal. waaw pël bi li ko yëgul tàngaay bi léeg ma wóorul sax imam bu ñaw bi. salaamaaleykum. Eh, booy san lépp jàmm. yow nga naan yow. dégg nga su ma mën dogal si réew lay taal. yow mën nga taal pël yow mën naa taal pël kay. yow kay lañ war taal. yow lañ war a taal. yow lañ war taal yow kam bu nit bu ñaaw bi yow est-ce que wóor teg wóor ma yow kañ yaa wóorul. yow mi toog fii nga wax da ngay taal poli kay yow yaa man maa bañ man maa bañ si boppam e eh, poli bugg ñoo la yow tam di laaj wóor laaj nga toll gaan yàgg sa rajo bi gaan eh, nit ñi man yow nag laaj nga poli baakam poli poli nañ la wala poli bëgg ñëw ey nga naan poli nga daal li ma ne bu fekkee am nga am nga fi yow am nga góor nga nga nga wakaatoon léegi poli poli poli yëpp laay taal yow ngeen poli poli yëpp laay taal man lijjënti <laughs>

Atyam, atyam, atyam. Baadoola, sëñ Bawde yaa baadoola. Bilaay mooy baadoola. Sëñ Bawde yaay baadoola. Bilaay mooy baadoola. Ñëpp wóor wóoroo. Te yaay digle koor gi fii ci koñ bi. Boo xëyee kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi.